Habib Beye nekk foofee ca consultant bu Canal moom mi nga xamante ni nekkoon na fi défenseur euh, ancien international sénégalais moom Habib Beye moomee rek ba mu jeexalee li xamante ni mooy carrière footballam dem na dafi li nga xamante ni euh, mooy formation entraîneur ginnaaw ba mu amee diplôme moom rek si la toog foofee ca Canal ngir nekk ab consultant maanaam di analyser match yi ak euh, yenn joueurs yi seen performance ci saison bi ñu def waaye nag moom Habib Beye moom rek jox nañ ko li nga nga xamante ni mooy entraîneur bu Red Star nekk foofee ca France division 2 ginnaaw ba ki nga xamante ni mooy euh, Bordeaux moom mi nga xamante ni deful benn résultat si lañ ko dàqee rek ñu jël abi Beye daf ko li nga xamante ni mooy entraîneur en attendant waaye nag nekkagul entraîneur officiel ginnaaw ba ñu dàqee kookee di euh, Bordeaux moom abi Beye moo ko remplacé ba léegi nag am na fa benn weer waaye rek Habib Beye mu ngi def euh, résultat ak équipe boobee di Red Qatar waaye nag moom ancien joueur bu olympique bu Marseille jamono ji rek ñu ngi leen di xamal moom moo nekk entraîneur bu Red Star maanaam c'est officiel ginnaaw ba mu defee ay résultat convaincre ñi nga xamante ni ñooy dirigeant yu ngànk football bu Red Star ñoom rek wax nañ ni léegi rek kii di international sénégalais di ancien international sénégalais di wuyoo ci turu Habib jamono ji rek moom lañ tabbu ngir mu nekk entraîneur bu Red Star nekk nekk foofee ca euh, France deuxième euh, division euh, mu saison bi jeex rek moom Habib Beye nga xamante ni sax dañ ko faral di nemmeeku rek bu ñu tabbee euh, joueurs yi nga xamante ni ñoo war a jël euh, ballon door te ñu joueurs sénégalais yi nga xamante ni dañoo def ay performance moom rek mooy africain euh, buy génn ngir di joxoñ baaraamu tuuma ñi nga xamante ni ñoo tabbu joueurs yooyu te boolewuñ si joueurs africain yuy def performance si saison bi rek te kenn jëlu leen waaye rek jamono ji rek soobu na soobu war na si beneen métier waaye lépp la ndaxte moom mooy entraîneur officiel bu olympique bu bu Star